dañuy dem dialogue. qu'est-ce qu'on ah, dialogue dialogue dialogue euh, léegi la ñuy wax waxu dialogue mais am na lu jiitu dialogue dañu nekkoon ci benn. lan moo jiitu dialogue dañu nekkoon ci benn processus électoral boo xam ne ñun dañ jàpp ne dafa vicié parce que bul fàtte ne li am Sénégal ren ci présidentielle bi euh, mosul am près de deux cent candidats à la candidature loolu mu ngi doog am Sénégal biñ si jógee ñu am quatre yoo xam ne yii. ñoom ñoo jaan la ci première étape bi mu demaat ba mu des ay euh, vingt et un candidats ñu téye suñu candidat ñun bi ñu téyee suñu kandidaa ci liñ ko téyee xëy na daañu am occasion dugg en profondeur ci lañ jàpp ne jot nañu jóg ñun en tant que PDS ak li ñu toll ci réew mi ak liñ ñu fi représenté euh, wut yoon yoon bu dul yoonu xeex yoonu saaga yoonu combat de rue mais yoon bu légal parce que nous disposons d'un groupe parlementaire bu ñu permettre que ñu intenter au niveau de l'Assemblée nationale euh, en se basant sur le règlement intérieur pour euh, demander à ce qu'on soit rétabli et que il y avait des soupçons de corruption au niveau du Conseil constitutionnel de collusion et de conflit d'intérêts ñu ne dañ koy porter euh, dans le cadre d'une résolution au niveau de l'Assemblée nationale pour demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire nous avons respecté toutes les procédures mën nga ci ànd mais mën nga ci ñàkk ànd aussi mais nous avons respecté toutes les procédures sànq euh, da nga laaj euh, monsieur Fofana je pense Fofana Fofana nga ne ko bu ndox tuuroo ndax an bàq des mu tontu la ne la déedéet dañuy rootiwaat man loolu laa d'accord mais jàpp mais nañu nangu ne ndox tuuru na nañ jàpp loolu ndox tuuru na processus bi yàqu na ndax yàqu na parce que Karim Wade li ñu ko éliminé ci double nationalité bi logigul xel mënu ko nangu jàpp naa ne benn procureur bu fekkoon ne moo yore affaire yi def ko mën nañu xoolaat lan moo tax mu def ko mais pas les juges constitutionnels parce que le 16 le euh, au mois d'octobre d'abord il disposait d'un récépissé bu ko wane ne que ni il a renoncé ci nationalité française bi mu amoon ba ñu defal ko récépissé mu tey le 20 bi conseil constitutionnel di jël saa décision nga xam ne tey boo xoolee décision conseil constitutionnel bi mu mujj a génne le 20 lañ ko fixé la date du 20 il avait déjà depuis le 16 le décret bi nga xam ne moo doon wane ne Karim Wade n'a plus la nationalité séné euh, française loolu benn élément la beneen élément bi ci amaat mooy malgré tout ça nee nañ ko tu as une double nationalité loolu ñun mënul dugg suñu bopp leneen li ci amaat mooy am na presque cinquante candidats yoo xam ne dañ leen gàllankoor ci li nga xam ne moom mooy parrainage contrôle parrainage muy euh, euh, les candidats spoliés 49 yi mais ñooñu aussi dañu am ay droit comme ni Karim Wade amee ay droit ñooñu. kenn koo ci jël kaawam ci parrainage yi ay techniciens ñoo la éliminé su ne sont pas les juges euh, du conseil constitutionnel mais des technicien des informaticiens ñoo doon manipuler seen ay données ñii seen clé mënul ubbeeku ñun leen dàq nañ leen ñii ñu ne leen li ngeen indi motul parce que dafa manqué tel tel am ñoo xam ne dañu leen dindil ay région entières alors que bi ñuy doog a ñëw ci greffe bi ñuy xool seen ay documents gisoon nañ ne que ni euh, éléments yooy ñu ngi woon ci seen mais ban logiciel la ñu utiliser est-ce que Maïmouna kenn ci Sénégal mën nañu toog dama laa tele wax logiciel bi nan lay fonctionner ak nan fan la jógee kan moo ko maîtriser amul test amul au préalable ni rien donc amul benn garantie ñooñu nag léegi malgré effort yi ñu def ak liggéey bi ñu def ak seen ay équipe di ay sénégalais comme ñun ñu ñam ak ñoom les mêmes droits nga jël leen daal parce que tudd ñu euh, Amadou Ba tudd ñu Macky Sall tudd ñu euh, Diomaye euh, fay nga ne leen yéen compté wu leen ñi ñoo compté vous êtes 49 d'accord mais vous êtes des sénégalais de seconde zone mais Sénégal du doxee noonu warul doxe noonu c'est candidats spoliés aussi dañu am ay droits yoo xam ne ñoom it war nañu seetaat seen mbir leneen li ci amaat mooy est-ce que entre la l'Assemblée nationale ak le Conseil constitutionnel ban at ngeen mës a dégg ñu am problème bu toll nii. ban problème la am non. <laughs> mais euh, le groupe parlementaire bi nga xam ne moom mooy groupe parlementaire u PDS mi ngi accusé de euh, le conseil constitutionnel de corruption de Avec collusion et d'inter euh, et de conflit d'intérêt. Où sont les c'est-à-dire mbaadu <laughs> élément de preuve nga may laaj Mayoro élément de preuve nga ba ngeen di wax ba tey da ngeen ne réew mi dinañu waaru la ngeen may mun a ba ngeen di wax ba tey da ngeen ne réew mi dinañu waaru mais génne leen preuve yi nga am yi ngeen am preuve yooyu duñ ko parce que député bu ko def yoon jàpp la. dafa am yoon dafa am règle dafa am fu muy jaar. oh s'il y avait des preuves di ngeen ko bal di ngeen un moyen de balancer ça sur internet. et que Sénégalais yëpp ne fonctionne pas comme ça yéen a ngeen waxagul sax waxu commission d'enquête parlementaire pare ngeen ci. xoolal nous on n'est pas là à des rumeurs wala des éléments de preuve non xam nañu li ñuy def nous sommes un grand parti un parti de gouvernement xam nañ li ñuy def nous sommes assez li yoon wax tant que ñun dañu ne ñun dañu tànn yoon dañu tànn xool lan mooy loi lan la wax lan la règlement intérieur assemblée wax ci la ñu jaar loolu duñ ci déroger heure bu ñu waree preuve fa muy génne ak fa mu war a dem dana fa dem. preuve yi kañ lay génn dans six mois. defal nank rek non <laughs> la commission d'enquête parlementaire lañ la wax ni que ni maximum six mois lay durer loolu lañ la wax mais personne ne t'a jamais dit que ni les preuves vont sortir dans dix euh, ci amaat mooy ñun. en dehors de cela débat mooy am rek mais nous on a <coughs> euh, comment on l'appelle on a demandé à travers une loi euh, constitutionnelle le report de l'élection présidentielle ca loolu aussi dañ ko assumer débat mooy am débat juridique mooy am ñii ne mën na ne ñii ne mënul ne dégg naa léegi le professeur Ngouda Mboup li muy wax am na fu mu ko teg ma ne li may wax am naa fu ma ko teg et que nous tant que la loi nous permet d'utiliser des procédures de l'Assemblée nationale on les utilisera pour que pour am gain de cause leneen li ci amaat mooy euh, tey boo xoolee ñu ne la problème amul parce que institution yaa ngi dox assemblée ngi réunir assemblée d'accord dina réunir mais ci lan lay réunir ci processus électoral bu baaxul conseil constitutionnel mi ngi liggéey d'accord mais niñ leen joxañe kenn mësu leen ko joxañe leneen li ci amaat mooy ñi euh, euh, président de la république ñu ne entre le premier ministre et le président de la république dafa am problème mais ñi doon wax ne problème am na entre Amadou Ba ak Macky Sall problème am na entre euh, assemblée nationale ak conseil constitutionnel ñooñu ñoo taxaw tey ne problème amul le pays va bien donc affaire yi daal comme perte de profit ñu avancé affaire bi jeex na même s'il y des erreurs les erreurs sont applicables à tout le monde voilà Sénégal noonu lay doxee Sénégal du doxee noonu mais Eh, tamit il faut que ngeen rassurer eh, sénégalais yi xam nga conseil constitutionnel dafa basé wu ci déclaration sur l'honneur bu Karim wadd def ne au moment où il dépose sa candidature il est de nationalité sénégalaise. oui code civil français dafa ne pour que nga pour que nga nga acté décret mooy acté sa perte de nationalité. Le décret, il est sorti le 16. Karim Wade a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel bien avant. mën nañu jàpp ne. et démb hier maam Adama Gueye laa di li ñu toppee Rose Wardini parjure faux intellectuel war nañ ko toppee Karim wàdd parce que boo defee déclaration sur l'honneur Conseil constitutionnel dafay am a bu favorable jàpp ne yow mii di daagaan baatu askan bi ñemewoo xanaa. di def déclaration sur l'honneur fekk ne une partie de ce que tu dis amul et conseil constitutionnel statué éliminé Karim Wade sa a les Sénégalais beaucoup de gens disent que c'est pas normal c'est pas c'est pas c'est juste yéen ngeen jóge fële ngeen ne euh, da ngeen accuser deux juges de corruption vous avez les éléments de preuve le pays va trembler nañu mettre en place une commission d'enquête parlementaire APR Gallo ak yéen ñu mettre en place dans des délais fast track une commission d'enquête parlementaire ñu teg ko d'enquête parlementaire bi nooyeeguñu sax ngeen proposer euh, ngeen def proposition de loi pour reporter xaaral rek pour reporter l'élection l'élection présidentielle et vous ne parlez plus de la commission d'enquête parlementaire on dit le premier ministre a corrompu deux juges il rien qui le prouve et beaucoup de Sénégalais sont aujourd'hui fondés ba ñu commencer reprendre seen esprit sont aujourd'hui fondés à croire que c'est c'est une grosse manœuvre c'est une grosse manœuvre qui a réussi que liñ doon wax yépp c'était pour trouver un prétexte de reporter l'élection en connivence avec euh, l'Alliance pour la République parce que tout seul le PDS n'y serait pas parvenu euh, Maïmouna pare nga euh, ñun duñu cracher ci ñu am des initiatives parlementaires ba pare am le soutien de la paire duñ ci cracher depuis kañ mooy depuis euh, quelques jours ñun on là depuis douze ans suñu combat on l'a livre seul kenn jàppale wuñ si du opposition du keneen on a toujours combattu seul kon combat bi aussi bu ñu ci fekkee non <laughs> on ne dira pas à la paire mais restez pourquoi, non on pourquoi se pose cette générosité question pourquoi la subite question qu'on se pose mooy comment ils pour éliminer notre candidat c'est la première question qu'on se pose qu'on se on l'assume leneen li ci amaat mooy Maïmouna au moment où Karim Wade déposait sa candidature il avait déjà euh, demandé à renoncer à sa. sa mais il ne l'avait pas perdu. ah non ça ça ne dépend pas de lui. ça ouais. dépend de l'administration ouais, ouais, française mais il ne l'avait pas mais perdu. au moins l'administration française lui a euh, donné un récépissé qui montre que il a demandé à se départir de cette nationalité. sauf que c'est un décret qui acte la déchéance. de nationalité mais dans le droit sénégalais fan nga gis ñu exiger que ni il faut un décret de la République française pour que euh, le candidat puisse être euh, recevable fan nañ ko bind dans le droit sénégalais laa la ko laaj non waxuma la dans le droit français pour que la France car, considère Karim Wade non. comme ne faisant plus partie de ses citoyens il faut un la France ne nous pas Karim n'est pas candidat en France il est candidat au Sénégal cee defal nànk Karim ko dinañ ci dellu si peut-être. c'est-à-dire. ah non Karim Wade dañ ne ko waaw mais Ousmane Sonko li ko éliminé janvier la ñëw 5 janvier wala 4 janvier je me. le 4 ci la ñëw je ne maîtrise pas trop le dossier mais dégg naa ay nitam di ko argumenté que ni moom li ko éliminé contraire moo éliminé Karim Wade comment kii oui <laughs> bi moo ko éliminé kii non bi moo ko éliminé alors que tu devrais choisir entre le oui et le non c'est une situation boo xam ne il faut sénégalais yi taxaw. waxtaane waat ko affaire bi warul demee nii les juges du conseil constitutionnel ñun ñëpp dañu leen jox cër dañu leen respecte mais ay nit la ñu mën nañu juum leneen ak leneen mun na am ñëpp yamuñu nag parce que bu ñëpp yamoon am ñu gàdd seen cër mais ñun nous sommes dans notre bon droit tant que nous avons des possibilités hein, de fair valoir non droits au Sénégal en passant par des procédures euh, régulières yoo xam ne yi xeexul xuloowul saagawul werantewul daañ ci def ba lu ñu am nag jël te bi ñu demee ba benn instant itam nu avons été approchés par le collectif des 49 euh, candidats spoliés pour ñun ñu ñëw ànd ak ñoom ci combat bi ñu bokkandoo ko kon ñu nit dañuy assumer entièrement leurs revendications. et ces 49 candidats spoliés sont tous d'accord avec votre initiative de report de la non, no non non c'est pas tous parce que il faut dire également la vérité mais la majorité est d'accord avec nous parce que demandé à que le processus électoral soit suspendu le temps qu'ils soient euh, rétablis dans leurs droits loolu noo koy signifier comment on stoppe le processus électoral pour les rétablir dans leurs droits alors que une décision du conseil constitutionnel est sortie ça signifie le report maintenant y en a qui l'ont assumé tant que euh, <laughs> c'était pas passé mais y en a qui ont fait volte-face après le report avoir obtenu le report pour être sûr qu'ils seront rétablis dans leurs droits il y en a qui se sont rétractés ma am na ñoo xam ne dama leen inter non non du ma tudd non fii du ma fi tudd tur ko defee daal tontu naa leen ko defee wax leen lañ la ko def parce que Sénégal itam malheureusement maintenant les Sénégal dafa bëri ay yoo xam ne ils n'ont pas le de leur de man bu ma gëmee ne Sonko dafa war a bokk daf may jaral xeex jaar fi ma jàpp ne foofu laa war a jaar bu ma gëmee ne Amadou Ba dafa war a bokk daf may jaral xeex ma jaar fi ma war a jaar pour xam ne de bu ma gëmee ne Karim Wade dafa war a bokk moom mi sama candidat également dinaa ko défendre ba ku ñëw xam ne maa ngi koy défendre maintenant ñun dañu opté mënoon nañ taal pneu ñun nous façon partie des formation politiques yi am des des sections dans toutes les communes du Sénégal des représentants dans la diaspora de fédérations dans tous les départements on a 59 fédérations mais ñooñu bu ñu leen activer dañuy jóg mais est-ce que loolu mooy régler problème bi Sénégal foog ñu waxtaan mais waxtaan bi dafa war a sincère dafa war a fekk ne aussi sénégalais bu ne boo xam ne bi yaayoo nga yëkkati sa loxo ne dama bëgg a bokk ñu may la possibilité nga bokk ñu loolu la ñu gëm ci combat bi ñuy combat combat bi pour Karim Wade la mais c'est pour tous les autres yi nga xam ne ils se sentent offensés ils se sentent euh, euh par le processus électoral euh, euh. ou par d'autres organes yoo xam ne ñi ngi bokk ci processus électoral ñun ñooñu ñëpp dañ leen di def est-ce que le rejet de la candidature de Karim est-ce que la non-participation de Karim Wade à cette élection-là est-ce que l'intérêt de Karim Wade doit être au-dessus de l'intérêt tout de du tout du du peuple Ma, sénégalais. Maïmouna, tu parles d'intérêt. Moi, je parle de l'intérêt général. non est-ce que intérêt Karim Wade war na nekk au-dessus de l'intérêt général de l'intérêt du peuple sénégalais. moo wax la l'intérêt tey l'intérêt général les gens parlent de l'intérêt général mais ils parlent de leur intérêt d'abord et rattachent leur intérêt à l'intérêt général. dañu waxante dëgg mënuñu une cinquantaine ou voire même plus de cinquante candidats yoo xam ne kenn ku nekk sa cas c'est un cas particulier par rapport à ton élimination ñenn ñi wax nañu ñenn ñi waxuñu ñenn ñi am nañu leen naqari ñenn ñi am nañu peut-être plan de rechange wala ñeneen ñi amuñu ko et cetera et cetera non ñun li ñuy assumer pour PDS la tudd ñu turu kenn ñun PDS ñoo assumer ne ñun ñoo demander le report et on l'assume même avec si on... tout ce que ça nous vaut. quoi d'être aujourd'hui pointé du doigt. Macky Sall est traité Macky Sall est traité de dictateur. alors que Macky Sall fii ak dafa waroon a génn génn bu rafet Sénégal ñu commencé ñu considérer comme une démocratie bananière. ñan ngay wax. loolu yëpp. jar na ko tu parles de l'union ah, moi je parle de la communauté internationale. je parle de la communauté africaine. c'est la CEDEAO c'est l'union européenne c'est la France. Euh, alors que nous alors que nous defal nànk rek. fii heure bu ñu waxee ñu ne mais gaa ngi fii rawale France dégage kañ la ñu bëgg France di ñu àtte ñun di ñu wax leen lii ngeen war a def mbub mi ngeen sol jotu leen c'est pas à la France de nous dire ce que nous devons kañ fu dee bu ñu waxee ñu ne américains yi waruñu ñu yilif CEDEAO CEDEAO am na lu ko doy avec Burkina Faso avec Niger ak Mali na réglé loolu Sénégal àggul foofu xam ñun Sénégal bul jàpp ne Sénégal crise u Mali lay am wala crise u Burkina wala crise u Niger non le Sénégal c'est ñun suñu crise xam mooy lan xam nga ñun suñu crise mooy lan mooy dañuy wax ci déggoo C'est un coup d'état sans les armes. C'était le rendez-vous du peuple et vous avez arraché le rendez-vous. ñun suñu crise xam mooy lan ñuy le Sénégal c'est un de dialogue xam nga suñu crise mooy lan ñuy wax ca déggootuñu institutions yi déggootuñu homme politique yi déggootuñu extra ba pare tey dafa mel ne homme politique yi aussi dafa mel ne eh, kilifa diine yi dañ ñoo jéppi nañ xoolaat suñu bopp parce que boobu ba léegi déggoo sax ñoom ñu wax ci tellement on a créé des problèmes dans ce pays lan ku ne nee nga yow yaay falu yow rek lay doon. merci merci